kenn du ci rëcc président peut-être que stratégie la. d'accord euh, bu bëggoon siffler la fin de la récréation dina ko def. comme ni nga ko defee ci troisième mandat. alors yaa ngi wax euh, manque de discipline crise euh, d'autorité Euh, au sein du parti présidentiel mais ñu taxaw par exemple ci personne Mahmoud Saleh mi nga xam ne tey ñu bëri euh, yaakaar nañ ni lu ñu ñàkk biir APR moo leen ko xañ gis nga Mimi Touré bi muy génn euh, am na ci ay nitam yoo xam ne nii jàpp nañ ni Mahmoud Saleh moo ko togg wax nañ itam kaawu Oumar ak ñeneen ak ñeneen parce que tamit Mahmoud Saleh bëri na ñuy wax ni moom moo théorisé woon sax même mooy li nga xam ne dañ ko doon wax bu njëkk ba xam naa bu sama xel dellu si waatee ah, dinaa ko dinaa ko kii <laughs> mais Mahmoud Saleh boobu doon nga taxaw ci jàngat est que du tey jii euh, nekkinam ak Macky Sall parce que reproche yi bari na euh, mu mel ni peut-être que bokk na ci ñi nga xam ne ñoo crée problème ci biir APR. non nday man man dañ ma yar si ay kër kilifa. Mhm. dama yaru si ay kër kilifa mhm. du ko euh, dama ci dama ci am benn vision. Mhm. boo xam ni dama parce que dama observer réalité yi. en réalité Mohamed Sa Mohamed Sall bi ngay quel que soit ay qualité parce que nit ku nekk am ngay qualité. Mhm. am ngay défaut. Mhm. mais ci biir loolu. bu ko Macky Sall tegee si watam bàyyi ko rek am na njariñ bu mu ko bu mu ko amal bu mu ko <laughs> fa amal. koo comprendre nga li ma wax. Mhm. c'est-à-dire que mënoo génnee euh, Macky Sall ci Mahmoud Saleh. en fait c' une partie de Macky Sall. qui s' exprime <laughs> est ce que comprendre ni ma ko bëgg a waxee. tout à fait c' est à dire que en fait kër kilifa yi c' comme ça. Euh, d' accord ma ñu naan waaw buur aayu dag yi ñoo aay mais dag yi buur la <laughs> en réalité buur day laqatu ci ginnaaw dag yi. <laughs> Uh-huh, uh-huh. Euh, loolu la ñuy wax euh, en communication en science politique moom la ñuy wax fusible. Mmh. da ngay créer benn fusible bu problème amee rek moom lay mooy sauté. mais yow doo sauté mais en réalité li mu doon def yëpp yow la. moom lu koy def waaw mais yow dangay ngay créer fusible en fait euh, euh, kilifa yëpp noonu la ñuy def. Mhm. Euh, erreur yi ñoom la. kii yi ñoom la mais du dañ koy personnaliser ci ay nit. léegi nag bu demee ba un moment affaire yi ëpp doole nag. ñu daal di ñu daal di jëlee kooku foofu dañu ah kii daal moo doon yàqu fii. jëlee naa ko fi en fekk en réalité ñoom la je pense que. kon président day soxla am ku mel ni. Ah, Mahmoud teg ko foofu nga xam ne peut-être que yenn yi mën nañu ko ko jiñ te peut-être sax du nekk moom. non tout le temps nag yooyu day am. yaa xam mii su neexul woon Macky Sall dina wax lu tax na lu tax waxul Macky amul droit def troisième mandat comme ñeneen ñi. ñi ko waxoon am problème. Macky bu ko neexoon yaa xam mbay du wax ainsi de suite. Mm. donc yooyu yëpp ça c'est Macky Sall kon da nga jàppale la ko wax loo pale ba la jógee. waaw bien sûr. dañuy jël benn exemple peut-être exemple dina gros ci ñenn ñi mm-hmm. oustaz ak yooyu baal ma islamiste yi mm-hmm. mais yàlla kenn la dëgg la mais danaa ñun yàlla parce que à travers ces différents mm-hmm. ay melo yu wuute la <laughs> et pour misaal la rek tous ces responsables là ay melo la ñu am melo yooyu ay ci seen entourage day am ñu koy incarné. Mhm. bu ko defee loolu ñuy def agitation yooyu yëpp ñoom ñoo leen koy defloo. yaa xam bay waat naa ne bu bu jotu woon ndigal ñemewul waaw xalaatu ko sax. donc en résumé euh, bu ñu déggee li nga fi wax yëpp par rapport ak situation bu APR bi donc ni mu mel nii dafa neex njiitu réew mi. moo tax mu bàyyi leen ci dafa neex parce que dafa am euh, xam nga yi dafa nekkoon ay AG ak yëpp. Mhm. analyser ne contexte yi. Mhm. léegi mu def. gis nga anti système yooyu Sonko di wax moom moo ko jëkk def mu ne léegi je vais le contraire naa massifier sama parti en s'adaptant ci nit ñi lu ñu bëgg la preuve dafa defoon tournée nationale. xool population yi bu jaree sol jiin saaga nga sol jiin saaga sa yoon nekkul si ay idéologique ay morale nu situation présente voilà ay éthique politique ak sa mm-hmm. yoon nekkul si mm-hmm. l'essentiel efficacité mm-hmm. efficacité mooy bu élection yi ñëwee fañ fañ fañ nga yanu gars yi <laughs> dóor ci suuf ñoom yan seen yoon nekkul si yeneen ne ah, bu bu njëkkoon nag politique dafa amoon élégance mhm. dafa amoon éthique mhm. dafa amoon ay valeur mhm. dañ ñu koy togg di ko cultiver ku nekk ku reconnaître si valeurs yooyu da ngay ñëw bokk ci bu ko defee nga am benn satisfaction morale. Mhm. léegi nag nit ñi seen yoon nekkul satisfaction morale carte carte yi compte bancaire yi eh, passeport diplomatique yooyu <laughs> mooy affaire bi pas ay ay idéologie mhm. donc donc ils ne sont là que pour leur propre intérêt. Euh, donc on a vu que la situation actuellement au Sénégal li ñu waroon prôner defatuñu ko léegi seen intérêt rek la ñuy ah. suivre. gisoo ko. même opposition bi bi ñu tegee seen coalition yi rapidement noonu lan laa wax ci plateau yi dama leen nii oppo eh, ni ñum gaawee formé que nii noonu lay gaaw a tase <laughs> parce que xam nga dafa am le droit des sociétés lu ñuy wax l'affectio sociétatis cest à bu ngeen di associer la le comment vouloir être ensemble boobu mhm. bëgg a nekk liggéey ensemble loolu moo nekk ci politique bi léegi le mhm. comment vouloir vivre ensemble mais nag day fekk nag ku nekk actionnaire bu ne actionnaire politique bu ne. Mhm. nga gis ci sa bopp. d'accord boo jàppee ne keneen da la bëgg a rek. Mhm. nga ne ko ab abal naa la wala abal ma. d'accord alors Alassane est-ce que coow lii nekk ci seen biir euh, coalition bi est-ce que dina leen jig est-ce que tey euh, mënul indi jafe-jafe la grande coalition bi nga xam ne nii ñëpp tey d'accord nañu ni le président Macky Sall géré na ko ci waxtu bu gudd boo xam ne ñu bëri yaakaaroon ni heure bi euh, coalition bi dafay éclaté wu. da nga may may may revenir tuuti ci Sambel bi c'est-à-dire dama lay tënkal rek ci ñaari baat lan mooy Mahmoud Saleh Mahmoud Saleh doo dégg kenn ne sàcc na loo dégg na kenn ne fen na amul rapport de vasalité ak xaalis amul rapport de vassalité ak pouvoir kenn lay servir muy président donc ci service ci servir boobu muy service président nag ci la ñu aussi defee ab jàngat. Mahmoud Saleh mosoo ko dégg ci scandale ni rien.